ci kàddu gi Fatima Zahra Fall. am Bamba Dieng saabal. seen naataango moom Fama saabal. Dame saabal. mu nekkoon seen naataango moom Fama Niang ngir saabal. mu nekkoon seen naataango Niang Baalo saabal. mu nekkoon liggéey bu sof saabal tam ko. mu nekkoon seen naataango soxna Jaara ngir saabal. yaayu baayam saabal. konoon seen naataango Alioune Gaye saabal. Mbaye Babacar saabal. mu nekkoon seen naataango Khadija Ndiaye Sabal. mu nekkoon seen naataango Nogaye Dieng Sabal. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi dalaa leen a jàmm ci seen xët yëglekaay bi di Sabal tomb comme léppam di wolof tey di àjjuma ñaar fukk juróom-ñaari fani koor atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ñett yem ak àjjuma ñaar fukk juróom-ñeenti fani avril. atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar tolloo ko fukk juróom-benn fan yi cooroon yéen a ngi nuy teewlu ca Jàmmoo FM téeméer ak juróom-benn yu tombal juróom-benn ca nootaguy jamaa ak ca Daaru Muxti FM téeméer ak ñeent yu tombal ñeent Mouhalim info ki pangook canal info ak xelxom TV xibaar yi li ci gën a fës. xibaar yi ak Mame li gën a fes ci bopp xibaar yi jàmbur yi wolu nañu leen ca ngombulaan ga juróomi fani mee yi di ñëw ngir ñu war a waxtaane sart bu yees euh, bu jëm ci taxawal këruk euh, lijjanti guy saytu mbalit mi ci réew mi ca jàngu nepp euh, Cheikh Anta Diop njiital kuddu lëkkaloo nak ñi muy liggéeya ndool ak jàngaan yi dalal na ci àllarba ji njiital amas realty ak baram li ñu doon waxtaane bokk na ca tabax lekkukaay bu yees ca jàngu ne ba Fatou Astou Soxna ma doon wasin ndax euh, càgganteeg fajkat yi teyal xel yu bari ci ci ni ñuy euh, tàggatee ñuy yëngu ci paj mi loolu tax Abdoulaye Diouf Sarr ci janoom ak saabalkat yi ci alxamis ji xam ne ne dinañu taxawal kuréel guy saytu daara yi loofoon ñuy yëngu ci paj mi bokk yi ak yeneen ñoo taxaw ñu xibaar yi bu ni ko te xarñee toptal ci xibaar yi bi ci réew yeeg sëñ Asbil Kan jeexalee ko seen woppaw na xel yi xel yi Xadim Bamba daaru ci xarale gi bismillah xibaar yi dañu koy dooreek uh, ni nu ko waxee woon ca bopp ba ngir taxawal këruk lijjanti guy saytu mbalit mi ci réew mi jàmbur yi woolu nañu leen juróomi fani mee yi di ñëw ginnaaw ab yëgle bu bàyyi ko ci ki yore wàllu ciiwal ca ngombalaan ga ngir càmbar uh, sartu juróom benn atum ñaari junne ak ñaar fukk ñaar bi daganal ñu teg fii lijjanti guy saytu mbalit mi sona sonacetsa euh, jëwriñ ji yore lépp lu jëm ci dëkkuwaay ak euh, caytuk njéeméer gi dina layal euh, sart bi su fukki waxtu jotee di li saabal bi xamlee ci weneen wàll ci wàll gi dolli ci xew-xew bi des na ci toftal wéttug sart bi su fukk juróomi waxtu jotee jëm ci wàllu mbel yi jëwriñ ji yore lépp lu aju ci mbëkk ak xam-xamu suuf dina jano ak jàmbur yi di li Seneweb xamle. ak saabal tombukom xibaar yu wér te jàngu ne Cheikh Anta Diop waa kuddu digg nañu tabaxu lekkukaay bu àttan ñaari junni ak juróomi téeméeri dongo nu teewlu ci soxna Linguère. njiital ku te yor saytu ga ci jàngune boobu Cheikh Anta dalaloon na njiital mbootaay gi di Amas Realty ak ay ndawam moomu ndaje bu nu sukkandikoo ci yéenekaayu Blas dañu doon fésal laltaayu ko sembu wu njëkk ci tabaxuk lekkukaay gi waral leel ñaari junni ak juróomi téeméeri dongo bis bu nekk muy sembu wu njàngaan yi rafetlu. ca loolu itam ñoom jàngaan ya wax nañu seen xalaat ci semb wi ngir ñu gën leen mën a taxawu te semb yu dëppoo ak seeni bëgg-bëgg Linguère Bousso Sabal. jaajëfal ko bu baax moom soxna bu Linguère Bousso Diouf Sarr yëgle na sart yu mat gu ñuy amal ci daara yi jàngale wër gu yaram gi sana Xadija Njaay dikk na ci. faatuk astu soxna gi ba muy wësin ndax ñàkk taxawu tax na ñuy xoolaat doxalinu njàngale wér gi yaram ci daara yi ci yëngu ci ndajeem ak ëttu caabal yi alxamis ji jëwriñ ji yor wàllu wér gi yaram xamle na ne jot na ay ndigal yu leer moom ak naataangoom bi yor njaa njàng mu kawe mi ngir saytu daara yooyu lu soxal daara tàggatukaay suri sëñ yi jot nañu ay ndigal yu leer man ak sama naataangoo bi yor njàng mu kawe mi ngir nu amal ak ceetu ci daara yooyu Diouf Sarr di dëggal ne dina ci ànd ak anax sub kuréel gi saytu njàng mi ci daara yu kawe yi waaw anax sub dina nu gunge ci yoonu saytu googu ndax bu weesoo def liggéeyu paj dafa am yu bari yu nu war a soppi ba noppi ci nu ñu koy defee lii la jëwriñ ji xamle njiitu càmm gi Macky Sall ci ndiisoo ko jëwriñu ñaar fukki fan avril bi mujj santaane na ak ceytu ci daara yu kawe yi jàngale ci wér-gi-yaram ci ndiisoog jëwriñ googu njiitu mi dikkaat na lool ci dolli lu ñu tukkër yi wér gi yaram yi te fexe ba ñu tàggate bu baax ñi ci yëngu ci lu ñu tu ak awale yoon daara yi jàngale ci wér gi yaram Khadija Ndiaye ngir saabal jaajëf Khadija Ndiaye donte sax amaloon nañu ay waxtaan seen biir téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti ASP yi dàq nañu leen ba faw Nogay kilifay càmm gi mënatuñoo muñ benn yoon yëngu-yëngu yi yi am na tey ay weer ñu leen doon gaaral ñu yokk seeni payoor wutal leen seen tëralinu bopp waaye ginnaaw coow li bopp yu bari sopp nañu leen ci xëy mi donte am na ay waxtaan yu bari yu ñu ci amaloon kilifa yi jël nañu dogal dàq bépp xëykat bu ci bokk xibaar boobu fara France na fi jóge ko xam ne ci jeemeer gi muy téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett xëykat dàq nañu leen xibaar boobu Jamaako Touré wéral na ko moom fara mbootaaya mbootaay AFP jot nañu ko ci jollosu ak fi Walf Quotidien mu dolli ci ne njiital xelalkat lu kawe li ngir waxtaan ngir dimbali askan wi soxna Innocence Notap ne woon nañu bàyyi wax ci saabali waxoon na it dina door a waxtaan ak kilifa yi ngir ñu am ndam Diamaco Touré ngi réccu nekkul lu ñu seetlu février bay wees ki paangu gu njëkk gi lañu dàqoon ci fan yi wees ñu teg ci ñii jot xibaar buy wax ni dàq nañu leen ñoo ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett nit ñu ñu yeewi ci kàddu gi Nogoy Dieng saabal jaajëfal ko bu baax moom soxna Nogay Dieng wàccu ko soobare xare bi wàcc nañu ca dali fippukat ya fekk fa ay toni toni sineebar soxna Nogay Bey dikkaat na ci ci xibaar bi joxe saabal bi réew mi tomb kom tasaat ko xamle na ne feeñal gi day topp yeneen yi wàcc lu ñutu yuy wéy ci dëkk yu bari ak ci dal yi ne teg nañu loxo limbu takku ci sineebar ba lakk ko ca wara bi ca dëkkub elol ak tund ya ko wër fekk nañu fa juróom-ñaar fukk ak ñeenti saakuy sineebar ak seeni juróom fukk ak juróom benn ndefikaay juwu ca masaraan teg nañu loxo beneen ci seeni dal fekk fa fukk ak ñaari saaku juróom fukki kilo ci sineebar ak juróom-ñeenti ndefikaay ñaari liitar ak yeneen yooyu juróomi liitar yu fees dell ak i juwuy sineebar rax ci dolli téeméer ak juróom-ñaari laxasi kilogramme yi ñu fa teg loxo ci wàllu wàcc yooyu fekk nañu juróom fukk ak ñetti saaku ca Gine Jaajube di benn dëkk bu féete ca wàll yooya fekkati ñeent fukk ak juróom benn saaku ca dëkkub Junji ca bëj Saalum masaraan luy toll ci juróom benn fukk ak juróom benn saako juróom fukki kilo ak juróom benn defkaay ñaar fukki litar yu ñu sol ay juwuy si neebal teges na neen loxo lii bu nu sukkandikoo ci saabali dir a génne xareb réew mi moo ngi amal yi wàcc kaaraange lu ëpp weer ca wàll bëj saalum ya di ko jaajëfal moom soxna Nogay Bey bokk yi loolu moo doonoon xaaju xibaar yi njëkk yi bu ngeen taaxirloo nu dëkk ak yéen di ñaareelu xaaju xibaar yi ginnaaw bàkk wi xibaar bi ci jërëjëf Xaadim euh, Bamba daaru ci xarale gi bokk yi agsi nañu ci ñaareelu xaaju xibaar yi dañu koy dooreek euh, xibaar yi biti réew yi di ci ànd ak euh, Serigne Asbil Serigne Asbil ginnaaw bu ma la nuyoo ziyaar la ci aljuma ji di la ndokkeel ci guddi gi ñu jugee démb muy guddi layatul xadri mbaa fasaale ngeen ñu ci bu baax a baax rek ana tey lan ngay dooree xibaar yi bitim réew yi waaw kay soxna Mame Fama Niang ñoo ngi lay delloo ziyaara bu baax ci ajuma ji Euh, di la wax it moom fasaal nañ jullit ñëpp ci guddi nga xam ne moo wees di guddi gu màgg ci lislaam kon xibaar yi biti réew yi dañ koy doo rek euh, RDC waxi jàmm ca Nairobi tànki jàmm yuusa Kenya yi ndax dina jur jàmm ca penku Congo njiital Kenya xam ne ne kippaangu rëtalkat yu bari bokkoon ci ndajeem Nairobi nangu nañoo wér seen gànnaay yi waaye moom bëgg ñoo bëgg xëpp ci yëf yi suuf ci xibaar bu ñu fësal ca wuru ay Kenyatta rëtalkat yu bari ñu déggee ba ñu déggee xibaar bi rek euh, ci la ñu teg seen gànnaay ñoom ñenn ñi nag euh, ñu ci des moom ñoo ngi sàkk ñu muñal leen ngir ñu mën a gën a dëppook sart yi waaye bëgg nañoo def lu ñu mën ngir jëmmale seen dëkk ba kanam. lu soxal euh, France ak Afrique Emmanuel Macron ak Afrique xaaj ñaareel bi ci pàcc benn ginnaaw ba ko njiital Afrique yi ndokkeelee Emmanuel Macron fas naa yéene mottali naal yi mu sumboon ca dugg ca novembre atum ñaar junni ak fukk juróom-ñaar ak ca Montpellier octobre bi wees ginnaaw ba mu ba mu falee kipangoom gi li xelam njëkk a dem nag mooy dóoru jéegam ci RDC ak ca Angola kon xibaar yi biti réew yi soxna Mame Fama dañ koy jeexalee ak lu soxal Covid fukk juróom-ñett bi juróom-ñeent bi euh, Siin moom ba mooy benn dëkk bi wéyal di wattandiku lawu ko micron bi euh, tëj nit ñi ak euh, ay ñàkk wërngal ñenn ñi sàngaay nag a ngi ci guuta di rëpp ñeenti ay bés donte ay jeexi jaaxa am na ci wéru ko ñàkk ñàkk bi teewul ñuy xeex ngir dara ci Covid 19 maanaam dara bañ fa am ci feebar boobu ci di omicron am na nag rëcc rëcc bu mën a yëngal nguuruug Xi Jinping ci daanaka wenn weer ci ñaari ci ñaari fukkeelu ndajeem langu communisme bu Siin Euh, kon euh, soxna maam Famali moo fi rusé woon ci xibaar yi bi ci réew di la jaajëfal bu baax di jaajëfal mboolem ñu doon teewlu ci xibaar yi. jëfal la bu baax euh, sañ asbir ci xibaar yi bitim yooyu noonu mbokk yi bu ngeen taaxir loonu di këkk ci liy jeexal xibaar yi muy seen woppam na xel yi xel yi ginnaaw xalam gi. ngir nit ki moom boppam ci wàllu xam-xam faaw mu jàngee ci aw làkkam diir bu yàgg a ngi nii nga bëgg moom sa bopp ci wàllu xam-xam. bëgg jàng xam-xam ci saw làkk mu tëla ticc ndax ñàkk gis téere wolof yi sa jaaxle jeex na tàkk ak librairie xidma dangeen fa fekk mboolem téere xam-xam yi ci làkk wolof muy diine xamtu science mboor histoire philosophe ak yeneen xeeti xam-xam yi naka noonu am nañ téere yeneen làkk yi niki arab français ak anglais librairie xidma dangeen leen fekk Touba marché Daarul Xuddoos fa pàkku ginaar ba ak Kaolack Thiès Mbour Dakar fépp fu ngeen mën a nekk ci réew mi bu ngeen fa dana ñu leen ko andil ba fa ngeen nekk woote leen gaaw ci 77 596 16 16 wala 77 716 23 07 librairie xidma bërëb buy liggéeyal xam-xam ci làkk wolof sunu yëf la librairie xidma ñoo leen di gunge ci seen wépp wii dina xel yi xel yi na xel yi xel yi dañu ciy dalal Serigne Modou Niang Serigne Modou ginnaaw ba ma la nuyoo ziar la dalal ci xibaar yi ana tey lan nga nuy fàttalil ginnaaw boo nu fàttalee waat yi nga fi bàyyi woon démb ba noppi. jërëjëf soxna maam Fama Niang sama doom baay maa ngi lay fayum nuyoo te di la jaajëfal bu baax ci aajodo xibaar yu leer yi ak ci dalal gi tey nuyu mbooleem waa saabal yëpp ak ñi topp seen xibaari saabal ak seen wëpp soxna maam faa ma ñëw ci waate dafa bàyyi woon muy lan mooy ticciku ak wunniku ticciku nag ab ragal boo xam ni dañ ko daan duma rek fu mu toll ba benn bis nga koy duma muy jéem a fayu ndeke lam foogoon fekk ko fa moo la ëpp doole ba xaw laa jekku kooku ne ticciku na ci yow kooku moom duut la may jàmb ticciku na ci yow wunniku nag am na ñaar ci wolof wunniku niki ab góob góom boo xam daa demoon bay wir daal di wunnikuwaat wunniku mooy góom boo xam daa demoon ba teg aw ak di bëgg tane ak wan ak denc góob góob ba loolu wunniku la am na benn wunniku boo xam euh, ragal bu ticciku waaw de bu day wunniku ci euh, ñi nga xam mooy mooy ëpp doole di dóor loolu wunniku la waat yooyu nag tey gaa ñu bari jàpp nañ ko Baye Cheikh Daaru Thierno Mbacke Bilal Touba Jàkke Njuga euh, Mbacke njaay sama làkk wolof la ak euh, sëñ Ousmane Diagne Italie ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax ci topp gi. kon ñëw seen waa tey muy lan mooy ngókk ak kook ngókk ak kook acci book gaañ ne xeli xeli jërë ngeen jëf. Librairie Xidma ñoo leen doon gunge ci na xeli xeli. ay ca bokk kon na xel yi di ko jaajëfal bu baax moom Serigne Modou Niang ci wopp wu am solo woowu di jaajëfal ñu doon teewlu xibaar ci Sabadotomb.com di jaajëfal ñu jàpp ci liggéey ba mu yemb Soxna Xadija Ndiaye moo nekkoon ci lotaabe gi Xarim Bamba Daaru ci xarala gi yéen a ngi doon teewlu ca rajo Jàmmoo FM téeméer ak juróom-benn yu tombal juróom-benn ca nooto guy ñama ak ca Daaru Muxti FM téeméer ak ñeent yu tombal ñeent mu allim info Kipango Canal Info ak Xelcom TV ba tey itam man ngeen ñoo topp ci lënd geek ci mbaalu jokko yi bu ngeen defee ñetti wa tomb saabal tomb kom jërë ngeen jëf nu yendu ak jàmm jàmm nag def koy suuxat